mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne YouTube SENactu TV tey nag dañuy daal di ñëw ak yéen ci di gën a fës ci xibaar yi xibaar yi nag dinañ ko door ca mondial bu Qatar bu ñu jëm bi nga xam ne nag équipe bu Sénégal daal dina dem ci bi lépp jongante wax nag mondial résumé na lépp waaye nag dañuy defal ab na boo xamante ni ñi nga xam ne ñoo di africains yi moom la ñuy représenté foofee mondial ba ki nga xam ne moo di Bass Thioune la ñu choisir pour rek mu représenter Sénégal foofee ci hymne international de la coupe du monde naka noonu nag yeneen pàcc ci Afrique nag am na ñeneen centre ñu fa jot a woo pour ñu rek amal li ni mel bi lépp tournage nag dinañ ko amal ci ñaar fukki fan ci weeru octobre bu ñu jëm. biir euh, Sénégal waaye nag kawteef lañu fay jëlee di nag rak tiis ginnaaw ki nga xam ni moom mi ngi wuyoo ci sant bi di Baro donte nag li nga xam ne moo di turam rek journal yi fësal nuñ ko moo daal di jël ab fetal daal koy tiire ci bopp jabaram ba mu jaaree fa ñàkk fa bakkanam lu tax mu def lu ni mel du dara rek lu dul soxnaam dafa wàcc daal daal di ñëw ne ko carrément que sëy bi daal mënatul a dem naka noonu nag moom mu nekk di ci wax waaye nag ndaw si le nag wuyu ko daal di rek commencé di defar ay bagage rek pour génn li nga xam ni moo di domicile am moo di néegub sëyam ba tax na nag moom mee di baro si la jëlee ab fetal rek daal di koy tuure mu daal si ñàkk bakkanam fi mu toll teeme nag moom mee di baro mu ngi ci loxol yoon te yoon nag dina ci amal ab euh, enquête ndaw lañu nekkoon ci réseaux sociaux yi di saaga ki nga xam ni moo di jaaga euh, di woon soxna ci nëm si yàlla si Thione Seck di yaay ci wàll balaago Seck ba tax na nag moom moo di Ndeye Fatou jot na leen yóbbu woon euh, police ba tax nag ñu tëjoon leen fi mu toll téeméer nag police nag wéyal na enquête bi nag te procès bi taxaw na ba jot leen sax tëj ci lu toll ak juróom benn weer fii ci senegal Louga nag li fa xew du jàmm nag ab accident bu dox ci diggante ñaari camion agence nationale de la sécurité routière jot na rek ardo ci camion yi ñuy woowee ay poids lourds ndaxte accident yu ñuy def dafa bëri trop jotoon nañ sax xayma ba mu ci lu tollook cinq cent dix-neuf ñu ñàkk seen bakkan ci bilépp accident yoo xamante ni ay poids lourds ñoo ko daal di amal dañuy dem foofee ca Kaolack rawatina nag ci sortie Kaolack bi ñu gën koo xam ci route latérique di ab dëkk nag bu jóge loolu village bi di Njukkeel ab corps sans vie lañ fa fekk maanaam ab néew daal lañ fekk daal ci diggante bile bañ ko saytoo nag police amal ab enquête néew bi dal ab ndaw sa la suñu violé daal di koy jaman daal di koy jamate daal koy sànn fi ni ab ndaw la daal bu ñoo xamante ni dañoo yegg ci kawam jamate ko pare sànn ko ci diggante village bi di Njukkeel nekk ci sortie Kaolack moom nag ba defee enquête atam mi ngi tolloog si fukki euh, fukki atak ak juróom-ñaar di wuyoo ci turu Fatou Samb dëkk foofee ca Kaolack ci kër baayam ñu di wuyoo si turu El Hadj Thioune Samb moom nag police xam na leen rek nag bi lépp euh, ñaawteef nag du benn jam rek lañ ko jamate ginnaaw ba ñu àggee ci kawam moom nag jot nañ ko jamate ay jamate yu bëri nag fi mu tollu temee nag moom lee di néew bi nag yóbbu nañ ko foofee ca morgue bu hôpital bu Kaolack ngir rek amal dernier soin yi ni mel waaye nag dañuy daldi di ci accident de la route accident yi nag taqar naa si na torop fan yi ñu nekk fii ci réew bu Sénégal tey rek nag jot nañoo am accident foofu noonu ci sortie péage bu yi di ab kaar Ndiaga Ndiaye rek bu dal ci 4 x waaye nag il plus de peur que de mal ndax nag amul ko ci ñàkk bakkanam nemmeeku nañ ci ay gaañu gaañu bad buzz sur la toile tey nag bad buzz bi ci télévision yi la ginnaaw ba nga xam ne kii di Cheikh Cissé di ab praticien ñu woon ko foofee ci ab plateau buy am 2STV yi jàkkaarloo na ak kile di Pawlish naka noonu nag ñu yëkkante ay kàddu nag moom mee di Cheikh Cissé daal ni Pawlish amul place ci bilif télé bu ñuy waxee ay waxu faj ndax Pawlish dof la ignorant la ba tax nag xeex naroon am seen diggante ci plateau en direct foofee ca 2STV la xewee xibaar yi nag dañ koy nar képpeel ak affaire Olivier Sylviane Olivier Sylviane nag ab entraîneur la woon foofee ca Dakar Sacré-Cœur moom nag fan yi la ñu génnoon jot nañ ko yóbbu ci yoon ngir rek dañ ko doon euh, tuumaal li nga xam ne moo di mbiru pédophile ba tax na sax fukki elew ak juróom jotoon nañoo témoigner rek di wax rek ñoom dañoo nekk ay victimes d'atouchement sexuel moom nag di Olivier Sylvain nag weddi woon na li di mel ba tax na nag ki la di procureur naroon na ko daan lu tollook fukki atu kaso waaye nag partie civile bi ak ñi mu jël nag pour ñu défendre ko tax na rek moom mais di Olivier Sylvain ñaari atu kaso rek la tëdd ba tax na nag tey jii nag libéré nañ ko ba mu nekk en liberté définitive ba tax na nag fépp fu internet nekk ak fépp rek fu sénégalais nekk mu ngi ñaawlu li ni mel rek di ñaawlu taxawaayu procureur ak ñi yor bi lépp affaire mbokki internetu SENactu TV tey nag li leen indi loon ci li gën a fës ci xibaar yi di leen jox rek di daje ëllëg waaye laata loolu way leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche de notification pour di am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne yi seen YouTube SENactu TV